C'est un cabinet médical traditionnel Serigne Medoune Sey borom tawfeex di fajkat cosaan booy jëfandikoo gantiax ngeen mën ko fekk ca Dakar Touba Kaoulak Thiès wala Sakhindar ngeen ko nak jot ci 78 585 34 34 78 585 34 34 mo len don may sketch ganu Thiès. xale yi ma toog fii dugg bi biir ana xale yi ah. xale yan ah yow lañ jotee mën lañ jotee mën nañoo génn wala mënuñoo génn waaw ba jàmm lu xew mën nañoo génn wala mënuñoo génn mën nañoo génn kay tolañ nag ma wax kenn daf maa dóor dóor sa beneen doom bi daf maa dóor <laughs> ah sëñ bi wuy ma déglu ma rek euh, ñii danoo réew jéggal leen rek te yàlla tax man eh, dinaa wax ak ñoom jéggal mënugul am dërëm ndax lan defal ndànk xam nga ni ñu ñu rombee mais mënuñoo génn wala mënuñoo génn loolu dama defal ndànk dama bëgg ñu génn wala mënuñoo eh, ah couvre feu couvre feu couvre feu couvre feu am na non nañ génn si war nañ génn wala ñeen ma samp léegi def ñoo samp léegi nii waaw dañuy génn dañuy génn may ma nañ génn nga génn wala mënuñoo ana kubu man sampal la sampal léegi nii wala nga samp nga samp wala mënoo samp ñoom ñooy samp sam yow laa bëgg nga samp parce que ñoom ñooy samp kay dañu dem ñoom ñu samp lan mooy def caga caga noonu ñoom ñii ñooy samp génn ci biti xay génn yéen yéen ay fana way mu ngeen gënal mënu ngeen génn leen génn leen génn fenn yéen yéen jur waaw ñoo leen jur léegi nañ génn wala yéen ñëpp ma yóbbu leen waaw saa defal nañ génn wala ma yóbbu waaw defal déglu déglu naa rek eh génn leen ci biti. lan dem fenn génn. génn leen génne du ngeen génn. boo saaga ma du ma boo ko saaga ma doo ko ale. nga dóor amul ma saaga ma dóor loo. lu may saaga lu may saaga bul dóor boo ko saaga. léegi am problème waa baax na waa xamul lu mu doon euh, léegi xamul lu mu doon. bàyyil xale yi. léegi booy waxal loo bëgg. ñu jox la ko nga dem sa yoon. sa jeex jeex na. samp laa bëgg ngeen def ko. luy samp soxla daal samp kaay ma ne luy samp. samp la mooy samp da ngeen yéen ñëpp ngeen pompé pompe la loolu mag mënu ko xale saa loolu mag léegi ko def couvre-feu la waxoon naa leen bu leen génn couvre am na ngeen di génn waxoon naa leen yéen lu ñu dal rek yéen ñu ko teg lu ñu dal rek yéen ñu ko naa leen couvre-feu am naa leen couvre-feu am na wax naa na yéen baax samp leen sampal yow. samp samp leen nag doon indi ba fii nañu samp lan mooy samp. ñu ngi booy lii gone sax mënu ko asuma ak ma. na gaaw damaa yàkkamti. ah na gaaw na gaaw damaa yàkkamti. sambal eh sambal ci dël góor gi sëgal. Hmm? Eh, benn loxo la sambal benn loxo la sambal benn loxo la sambal. voilà waaw loolu jafe na jóge. kii kii paa bi la waaye paa bi la bàyyi turam. nii la wax nii nga ko nii nga ko daf ko nii. waaw waaw waaw. waaw ba eh, benn loxo laay def. benn loxo laay def benn loxo. sinon boo yi génn wala yéen boo yóbbu leen bu leen sàmm dama leen di yóbbu yéen ñëpp. waaw waaw waaw ñaar loxo def benn loxo laa la wax de. ah yow sàmm de. man benn laa def de gis nga di benn laa def. waaw kay waaw. kii kii kii bi def nii baa ngi ah, si de. ah maa ngi si de. <laughs> la fraîche

moom fekk ah ah ah. ah. Eh, ah! dimbali nu waaye yow ku baax. kon ma yóbbu leen samp leen. waaw doon na mu wala booy génn baal yi. eh commencé leen kon ñu ñu ma ñoo génnoo. Eh, samp leen waaye dañoo wóor yow. eh samp leen. mi jaay sampal rek garaawul méttiwul sampal. samp méttiwul sampal. waaye waaye bul fàtte am na cinq nag. kon am na cinq ñoom ñaar samp leen. ñii dañoo wóor. yow dafa normal da ngay tuuti. sa benn loxo li li sëmb la. bàyyi sa benn loxo. bàyyi naa bàyyi naa yàlla. sa benn sa grand boubou bii nga doon sëloo. ah bon ma set. man kay bàyyi naa billaay. maa ngi miir man dese naa de. maa ngi miir. sambal maa ngi miir eh sambal. nit laay xool. sambal maa ngi miir. daa sam jabet bi. sambal jabet bi. sama jabet bi moo yëngu. yow gi de yow wóor yow. day day fen dara jotoo day dof dof rek Kooku dee na baax kooku bàyyi kooku kooku dee na baax. lii jaaxal na. doon na samba. ii. ii bandi lañu. waaw samba nag. kii waaw waaw waaw samba samba kii sóoraale ko la ko bàyyi la. vas-y. waaw waaw vache yi. maa ngi koy maa ngi vache yi. yoo yoo maa ngi koy. maa mat saa matal naa. yow demal góor ah dugal. non matal naa. loolu daal loolu daal dugal sam. yow. léegi damay dem nii. Mm-hmm. bu subaa bu ma fi ñëwaatee première heure. Mm-hmm. bu booy demul yéen ñëpp laay yóbbu. jërëjëf yéen booy maa ngi dem suba dinaa fi ñëwaat. dugal fii fii mu ne. la faale mi ma baax rek ngay ngay sànni kala yu nekk la li gën gi gën ay yow ah, man waxuma loolu jugal fii jugal fii allahu eh, may ma ndox boobu ma ndox xamoo dara jugal ma ndox ma naan kay koor tey bi kenn munul fexe fexe ba ma du ma naan ndox wala ma lekk wala naa laa jàppale parce que yàlla kii day dara saa may ma rek waa ji waa ji waa ji bu wéeree jaay lew. da ngeen maa waroon a may ak waa ji la. Ah, yow yow yow yow Rousseau wax da ngeen maa war a ma. yow lan moo la tey tijji bunt bi ñëw. bu bu nu daal waaw yow da ngay fen yow ba ma nee la génnal génnoo. génnaa ni. yaa ngi ba bàyyi ba waaj a dem. génna génna léegi. yow tapet nga rek yambar bi. tapet tapet dina génn tapet tapet dina génn. lu tax génnoo ba muy métti. génn maa ngi ne. lu tax génnoo nga ne ah, doomi yëmbal nga yow. Ah, yow doomi yëmbal nga yow. yow doomi yëmbal. waaw yow doo doomi yëmbal. yow yow alum kàncax amoo fa amoo fa paak baax na nga naan man yow yow may may may leen ma ndox. eh doo fi dox sa koor la da ngay continué woor force force. par force da ngay woor force damay dox sama koor par force. wooruma tàppe di ngeen doon wooruma. yow eh, yow yaa ah, am fi maa fi kay yaa am nga fi. waaw lu la tere génn. génn bu ñu waxee ngay wongee toog sa. ñoo ko géré ñam ngeen de. yow ku jigéen ko dimbal laa wuyu. may ma ndox munu maa jox tàppe ngeen de ay jàmbar ngeen. mënatuma teg man C'est un cabinet médical traditionnel Serigne Medoun Sey borom tawfeex di fajkat chosan. booy Fondiko, gàncax ngeen fek Tchadaka, Dakar Touba Kaolack Thiès wala saxi Ndar ngeen jot 78 585 34 34 78 585 34 34 moo leen di may sketch Ganou Thiès. Salam.